dañ koy doore ak Jeux olympiques yi nga xam ne ñu ngi koy amal jamono bi foofu la ca Paris ñu gis na tey jii Maroc dafa dal am ndam ci kanamu États-Unis d'Amérique dal jàll ci li nga xam ne voilà mooy demi-finale yi kon ñu gis na nag li nga xam ne moo aju ci mbir moomu 4 buts à 0 la ko dal di ñoom waa Maroc ñoo ci dal am ndam léegi ñoom taxaw nañu kon ci demi-finale bi mu mel ni jege nañu lool ngir am li nga xamante ne voilà mooy médaille ci lii Fermin Lopez daf ci amal ab doublé waaye nak ki nga xamné mom moom wax Abel Ruiz dal di marquer benen but ba ci dess lolu moy ñi di wa Espagne dal di qualifier ci lii demi final bobu war ci Jano ak ñi di wa Maroc Maroc nak mom gis nañu né li nga xamanté mo ay ci jogante go ki di Asraf Hakimi buteur la ci mom mi nga xamné moy sen capitaine voilà bokku na ci li tax kon ñi di Maroc dal di qualifier ci kanamu ñi di wa États-Unis 4-0 la dal di door kon match bu neex la wara doon da xam ngeen ñi di Maroc door nañu fi Argentine voilà tay ji éliminé nañu tam benen équipe bu Amérique muy ñi di wa dénga mam États-Unis d'Amérique wara jëno ak ñii di waa Espagne ci li nga xam ne voilà moo aju ci wàllum demi-finale boobule Maroc nag moom mel na ni at yi moom ñu ngi bégal Afrique lool rawatina ci li nga xamante ne moo aju ci lu ni mel comme coupe du monde ak yu mel ndax xam ngeen ndax mën nañu wax ne àdduna bi yëpp a fay daje léegi nag ñu gis ne ñoom waa Maroc seen équipe bu mag muy équipe nationale A demoo ci li nga xam ne voilà muy demi-finale coupe du monde njëlbeen bi yoon ci Afrique lan mo cay top ndax dinañu éliminer Espagne taxo ci final ba wala lool yépp nek lo xam ne mu ngi ci suñu kanam lo moy loolu nag dinañu wax ci transfert ndax jëlé dañ ci taskaru xibaar ñuy xam la nakat ki nga xam mom lañu wax Rafinha nek fofu la ci FC Barcelona Al Nassr paré na ngir fay 100 millions d'euros ngir dal di koy signé xam nga temps ci ginnaaw déggoon ngeen ñu daan di wax ne Al Hilal da ko bëgg déggoon ngeen fi tam club bu melni Al Ittihad ay jamono waaye nak ñu gis na jamono bi Al Nassr la ñuy dégg Al Nassr dal bu Cristiano Ronaldo wala jamono bi mo bëgg signé ki nga xam mom lañu wax Rafinha su ko ñu dal renforcer sen attaque ak ndax niki daaw moom xam ngeen ne son nañu lool ci kanamu Al Hilal Al Nasr bu dóoree ba jàpp ne mooy ci nekk rek boo daja Al bu duma ko daf ko dóor aller ak retour naka noonu tam ci wàllum coupe loolu nekk loo xam ne jamono bi bëgg nañ ci jël ay saafara rafeñaa ca basala rek te nee nañu nag bu fekkente ba transfert bi sotti su boobaa loolu dina nekk ndimbal lool ci ñoom ñi nga xam ñoo waa Barcelone ndax dinañu am koppar yoo xam ne danañ ko mën a lu ay ci transfert ki nga xam ne mooy Dani Olmo wala ki nga xam ne mooy Nico Williams bi nga xam ne jamono bi lëmbee nañuy taskatu yi gone ak Real Madrid yi nga xam ne ñu ngi koy wax Juan Martinez muy gone gu tuuti goo xam ne day nee nañu fukki at ak juróom-benn la dal di am maanaam 16 ans waaye gone gi ab défenseur la boo xam ne ko ci match bi weesu nga xam ne Real Madrid daal jamono bi dañu gis ne am na club yu koy topp rawatina foofu la ci Angleterre Manchester United ak Chelsea Football Club bëgg nañu ko moom mii ñuy wax Juan Martinez comme ni ñu ko waxee 16 ans képp la am comme ni ngeen koy gisee noonu ndax kat gis ne fan yi doon Sami Lacal ci football club moom gone gu baax lay bañ a gis te am na koppar Manchester itam jamono bi mu ngi ci renforcement bu méttee métti ndax Manchester dañ koo soxla pour équipe première wala déet loolu amuñu ci xibaar xibaar bu ñu am daal mooy ñoom waa Manchester ak Chelsea football club ñoom ñoo koy topp bu ñu sukkandikoo kon ci taskatu xibaar yi Chelsea football nga xam ne mooy seen wàccaay ci pré yi nga xam ne am na match bu rëy bu war a dox seen diggante ci réew mi match bi mu doon am diggante Sénégal ak Mauritanie la woon bu ma juumul voilà jamono bi nag gis nañu ne jóge na ci vacances xëy na wér na ba dégg maam war a mën a dellusiwaat ci terrain bi ba ngi entraîné ak équipe bu Chelsea football club maanaam moom ak groupe bi kon li xamante ne moo xew mooy match yi di ñëw mën na am chance dal di ci football moom kii di Nicolas Jackson voilà kon fi ne nii lay jeex na Chelsea football club moom fi ne nii mën ñoom itam ñu ngi entraîné muy ay éléments yoo xam ne xëy na manqué woon nañu leen ci match yi nga xamante ne na voilà loolu nekk ay xibaar yu ama am solo kon Nicolas Jackson ñu ko doon laajte mu ngi noonu dellu siwaat na te mu ngi entraîné ak équipe boobu di Chelsea Football Club Jurgen Klopp moom xam ngeen ne fan yee ci ginnaaw waxoon na fi waxi maanaam bàyyi li nga xamante ne mooy coaching dellu siwaat na ci wax joojule moom nee na nga xamante ne mooy carrière ci wàllum coaching jeex na voilà nee na loolu moom nekk na loo xamante ni fi mu ne nii xëy na wax na li nga xamante ne mooy jamono bii la wax nee na jamono bi moom loolu nekkoon ci jamono mën na dox ñu dem ba jëme jamono yëpp ñëwaat ci kanamam su ko defee mu war a mën a jëlaat décision dellusiwaat ci bi waaye li nga xamante ne mooy maanaam retraité carrément moom defu ko moom loolu la xam le bi di coach moom nekkul loo xamante ne fi mu ne nii mu ngi ci xelam dina ci xelam mooy nekk ak ay sëtam di fo ak ñoom maanaam xamante ne mooy temps bu baax dallu su ko defee nag bu ñu demee ba jëme jamono xelam dellusiwaat ko ci wàllum coaching mën a su bii li nga ne mooy yéeneem bu fekkante ne day dellusiwaat ci terrain bi itam xëy na beneen liggéey lay doon am na lu bari loo xam ne war na ko mën a dégg maam liggéey comme expérience bi nga xam ne am na ko ci wàllum football mais coaching moom ci jamono bi nekkul ci xelam waaye nag na leer bàyyiwul li nga xamante ne mooy coaching maanaam tekkiwul li nga xamante ne mooy dal yi maanaam jëlagul retraite FC Barcelone seen défenseur bi nga xam ne moom la wax Clément Lenglet moom nag nee nañu de ki nga xam ne mooy Hansi Flick bëgg na ko de te mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ndax gis na li nga xamante ne mooy jaloore yi mu jot a ci li nga xam ne mooy pré yi rawatina seen match bi nga xam ne weesu na doxoon seen diggante ak Manchester City kii di Clément Lenglet nee nañu moo jiitu woon gone yi nekkoon capitaine bi waaye match ba mu def ngi ci ndax daf koy dee téye foofu mu des ci équipe bi loolu moom ci moom lay des waaye dina jur concurrence bu rëy boo xam ne war dox kon digganteem ak ci mel ni Michael Ngor Faye ñoom Íñigo Martínez ba ci Eric Garcia bi nga xam ne dellusiwaat na jógee ca Girona gëñu ko able woon ni ki daaw kon Barça fi ne doyal nañu sëkk ay défenseur donte ne gis nañu ne ki nga xam ne mooy Araujo dafa am blessure te war toog ay weer bala muy dellu si loolu yépp nekk ay mbir yoo xam ne mën na gën a tax ñu téye ki nga xam ne mooy Clément Lenglet ndax ki nga xam ne mooy Christensen moom gis nañu ko dal di koy pousse mu joué ci li nga xam ne mooy digg ndax loolu nekk na loo xam ne mën na ko ndax joué lañu joué loo nañu ko ko joué loo waat ko ko loolu yépp nekk loo xam ne mën na ubbil buntu ki nga xam ne mooy Clément Lenglet mu des foofu li nga xam ne mooy ci FC Barcelone bu ñu sukkandekoo ci Mundo Deportivo